nu jagleel ñu amee jàngoroy coronavirus ñaareel ak nit ka mu fa dal dib commerçant ci xamunu ba tey fu nu ko ko wàllee euh, muy euh, lii di contamination communautaire euh, dal dinañ ko rawale si ndakaaru ci xibaar wàllu xibaar bokk na ci lii di lay dem nay koppar ci transporté gi ñeel dund gi nu baaxee askan wi loxo yi jotu ginnaaw yi du juróom benn di milliards waaye milliards ak genn wàll leeral li ministre bi nga xamante ni moo yore wàll développement communautaire Mansour Faye di ngeen ko dégg ci xibaar yi njaareem jot nañu ca camion yu njëkk bi jëm ci askan wi waaye faw ak taaxirlu ci ñooñee ko yellool ca euh, ña ca njëkk nepp xaaj di ñi euh, nekk ci euh, registre national unique bi wàllu reportage demal nañ leen mbokk yi ci kër ak gune gi nga xamante ne dañu ko daal di boom ci États-Unis baax somb njaboot ga yaay ji rawatina naqar ak waaye dellu rek dénk lépp sunu borom wooteeg doomi Sénégal yi taggatem bi ci frontière bi sundu ak Mauritanie ab diira ngi ñu ne fa sonn lool bu nu sañoon ak taxawu tukkee ci nguur gu Sénégal Aliou Ba ci technique Assane Touba la tàmbalee xibaar yi commerçant ba ñu fa dal di na ci yaram ba jàngoroy coronavirus xamuñu euh, fu mu ko jëlee euh, ku ko ko wàll moom ci xibaar rawale si nanu ko euh, ndakaaru mu mel ni kon foofe ca diwaan gu tedd kenn ku amee jàngoro jee fa de santé ba fa ca daaru max naan ci wàllum paju xibaar ñu taataane ci ma Diop mi nu toggal foofee ci diwaan ga transporté gi ñeel dund gi nu baaxee askan wi la cay dem ne ay koppar tollul juróom-benn di milliards sori na ko lool benn milliard ak genn wàll noonee la ministre bi yore wàllu développement communautaire waxe euh, su Faye ñu déglu ko ci leeral. j'ai suivi comme tout le monde euh, information. ci mbetteel ci laa dégg xibaar yu wérul yi nga xam ni ñoom ñooy circuler ci réseaux sociaux yi bi ma déggee ñu yëkkati yenn chiffres yi di wax yenn montants yi te teguñu ko fenn ci loolu damay ñëw rek ngir leeral waxtaan nañu ak benn transporteur moom moo ñu yóbbul lii di dund gi ci région yi ñu xam ni moom la ñu duppee région périphérique ci demee ni Ziguinchor euh, Kédougou ak Matam. te kooku li ñu koy fay dix-huit cinq cent ci tonne bu nekk. ci lu jëm ci région yi nekk ci digg réew mi ñuy duppee région centre muy Fatick Diourbel Louga Kaffrine lañ koy fay mi ngi toll ci junneek juróomi téeméer tonne bu nekk ci région yu ci demee ni Tamba ak Saint-Louis maanaam li ñuy fay mi ngi toll ci ñetti junni tonne bu nekk ci loolu maa ngi woo ñi nga xam ni seen xel màcc na ci wàllu calcul ñu jël seen machine daal di calculer te loolu sax nañ ci boole liste yi nga xam ni yemb na ba pare buñ ko defee dinañ xam région bu nekk ñaata la ñuy dikk lépp tamit dinañ xam ñaata lay dikk ci wàllu koppar may fàttali ni Dakar moom bokku ci ndax Dakar ñii di militaires yi ñoom ñoo ko yóbbu li ñuy def rek moom mooy fay wàllu carburant bi ak chauffeur bi nga xam ne li ñu koy neexal maa ngi fàttali tamit ne association bi boo transporteurs yi ñoom ñëw nañ ci ñun ni dañuy jàppale ñoo ngi xaaral nit ak nombre camion bi nga xam ni moom la ñuy jébbal may woo ñi nga xam ni ñoom ñoo aay ci calcul ñu jël seen calcul bu ñu ko defee mbir mi milliard ak genn wàll sax du ca du ca àgg te loolu yaakaar naa ne bu ñu demee ba ca biir a biir dina nekk loo xam ni lu war a mën a wàññeeku lay doon donc globalement le coût du transport et ce même coût pourrait éventuellement ministre Mansour Faye ci tekki gi Hadj Ndate Diop diwaanu jaareem jot nañu euh, ñoom euh, dalal fukki camion yoo xamante ni ñoo yàpp dund googee ñu jagleel ñenn ci askan wi euh, ñenu ci njëkk a sedd nag mooy ñi ne ci kàggu bi nu duppe registre national unique donte nag faw ñoom ñooñee ñu boole ci taaxiirlu laatu ñuy tàmbale ca mi leeral yi Babacar Diouf. fukki camion yu sarse dund bi lañu jot ci diwaanu njaareem wante fi mu nekk nii njaboot yi bind woon ci registre national unique rek ñoom la ñuy jox ci première phase bi ki ko ne di dem Demba Diouf moom moo di directeur régional développement communautaire. les régions Diourbel am nañ fi quotaab quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-six ménages ci quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-six ménages national unique bi lañ leen di jële mooy registre bi nga xam ne ci carnet bi nga xam ne dañ ci recensé bind ci njël yi gën a néew doole ci euh, réew mi. ñeneen ñi nag dinañ jot seen wàll. wante ca kanam bu nu paree ci recensement bi nga xamante ni ñu ngi koy def fi mu toll nii. mu ko defee dina des lu ñu naan vingt neuf mille deux cent quatre vingt onze ménages vingt mille deux cent quatre vingt onze ménages yooyu ci quota d' extension bi lañ koy wooyee ñu ngi leen di tànn ci biir communes yi commune Sénégal gépp vingt communes yi région bi yépp donc région commune bu ci nekk am nga sa quota. ci vingt neuf mille deux cent quatre vingt onze yooyu loolu bu ñu koy tànn dinañ ci tënn maanaam. néew doole gi commune boobu néew doole ma nit ña nit ña fay yeewoo naka lim ba lu mu toll. li ñu war a jàpp tamit moo di ne distribution boobu maanaam séddale bi duñ ko tàmbali fekk semaine bii di ñëw. lu ci mënti xew askan wi ñu ngi toog di xaar. wante tamit di xaar ñu jox leen ko ci anam yi mu gën a selle. Diourbel RFM Babacar Diouf. jërëjëf Babacar ñu jàll wutali Touba ak association Serigne Daara ya fa ñoom bu nu sañoon am dund ak dimbal ngir rek gune yi ñu euh, téye ci daara yi ñu mën a euh, jafandu ca euh, ndax ñoom daal gënul leen ñu ne ñuy delloo gune yi ci seen i njaboot ak yeneen bu nu sañoon ni ñu ko waxee kon dund gi ñuy joxe ñu jot ca ba mën a wéy di téye yooyu gune ngir yar ngeeg njàngale mi ma Diop. association bi ëmb daara yu Tuuba yi di Rabita di fàttali seen bopp nguur gi ci don yi nga xam ne war na ko jox askan bi ci jamono ji ñuy wax Covid 19 Xaalis Jaxate mooy seen njiit. ndax fi ñu toll nii. am na fond bu ñu dégaase. wax ne dañoo bëgg. sëñ daara bu bëgg a delloo say gone. ñu organiser la caravane wut oto def ca carburant ñu yóbbu gone ya man dama leen ne ñama ci recevoir woon dama leen ne fond boobee ñu jël te di ko bëgg a def carburant buy delloo gone yi nañ ko dawal ci reer bi nañ ko dawal ci reer bi moo gën ñu di ko def carburant muy delloo te sax delloo moom ndax doo xam fañ jëm dañ fekk feebaram déet lii ngeen def lañ demandé mooy ku leen jàppale ci luñ mën a taxawoo xale yi kon loolu it appel bu jëm ci état la fii nag ci Touba am na yenn association yu génnoon di xam ne ni mosuñoo sax teg bët don yi nga xam ne ñu ngi koy joxe ci dëkk bi xaale jaxate sénégalais di dalal seen xel. saa bu amee lu ñuy séddale bu ñu xamee li ci rabita bi am nu mu toll. dañuy woo mun a seq muy coordonnateur yi. wet gu nekk ka fa jiite. ne ko jox ñu nangami tuur. ñoom ñoo xam ñañ dëkkal ñiñ jox ak ñiñ joxagut. ñu def liste indi. Rabita doon recevoir ay dons yoo xam ne ci wàllum dund la te yenn association yi nga xam ne dañoo taxaw ngir jàppale daara yi di ko joxe Marema Diop fii ci Touba. RFM. jërëjëf ma ndimbal li ba tey ak lu soxal ñenn ci askan wi koy xaar ci nguur gu Sénégal nappkat yi département Dagana ca lanu buñ sañoon kenn du leen fàtte seen jiite l'association Assane Niass ak Mamadou Diagne. moo leen wàcc nañu ñu ngi ci taxe nag toog léegi nag la leen mooy moo leen wàcc nañu ak seen njaboot war a lekk war a naan wala juróom benn junne mooy lekk ci lañ daa naan léegi nag ngi toog ci kaw war lekk war naan léegi nag noonu lay dëkk loxo bëgg ñu yëkk ndimbal lu ñu mën gaaw ndax noo ngi toog ak suñu njaboot man a commencé euh, jàmm daal ba ma ngaa dem euh, kaska moo lay wàccoon ci polo Sénégal bi ñu ngi toog nag du la njimal ak da ñaanal gouvernement bi da ñaanal euh, gouvernement Ndar ak préfet Dagana ak suñu chef de ba nga xam ne moom fi Mamadou Fall ñëpp suñu yéen mooy daal la ñu daal bu ñu soxla pour jàppale réew mi jàppale nit ndax noonu ñoo jàppale feebar ji amul président amul mool amul ñëpp a ñëpp laa dal parce que ñu jàppale waaye nag noo ngi toog ak suñu njaboot amul lekk amul naan léegi la bu nu nguur gi jàppale naka jaare si góor noonu mu jaare fi si préfet ndax tey ñoo fi nekkal euh, président waaw lañ ci mën gaaw nag noo ngi taxaw ak suñu njaboot ak euh, lu mu ci mën jàppale daal nañu si wax ñu jaar ak fa mu war jaar képp nga xam ne taxaw nga sa njaboot nga war ci am war ci ak dundal sa njaboot ndax daal lekk waaye nag bu ñu lekkul naanul ah la ne mën ci fekk eh, ci la artisan yu Lac Rose ci Ndakaaru ñoom yëglu jëmee ci njiitu réew mi ngir ñu bañ leen a fàtte ci programme résilience économique sociale ñu dégg déglu ci seen njiital kuréel muy président kon village artisanal eh, bu Lac Rose Mor Gueye ak eh, Abdou Abdou Diouf Diagne xam ñu nag ay artisan lañu artisan moom boo ko teree aar bi rek tere nga ko liggéeyam que loolu la xam amuñu leneen boobu ba tax na rek ñuy ñaan président Macky Sall ah ndimbal bi xamante ni moom mi ngi joxe ñoo xam mën nañ xam ne dem boobu da day ñu def ay pré jënd seen i bagage liggéey donc loolu lépp nag yàlla ñëw ak bëgg bëgg ba lii dal suñu kaw dañ di ñaan président rek ndimbal loo xam lool mu metti lool parce que au niveau village artisanal ñun dañ fi nekk ay artisan ba pare retourné mu amaat secteur informel boo xam ne ñu fi nekkoon di def ay landre vert balaat ankuwaat ñoo ñëpp tey seen activité bagage yooyu yëpp dañ ko xëy denc vraiment loolu daal lañ bëggoon vraiment ni ñu yëg xam ne ndimbal bi moom vraiment ñun ñi ko gën a mérité si lañ bokk Fatick euh, marché central ba léegi dimanche bu ne bu 11h yi dañ koy tëj loolu mooy euh, dogalab kilifay diwaan ga teg cee ni dootuñu nangu kenn kuy sañcee na mu la neexee ci boobu marché muy occupation anarchique euh, Aminata yi marché central bu Fatick ci dimanche ji laata fukki waxtoog benn di jot daanaka jaaykat yi fa nekk ñu bëri laali nañu ñu ko tawoon a def nag police moo leen fa mujj jëlee dogal bu bees nag la autorité administrative yi jël ànd ci ak waa mairie bi ne léegi dimanche bu jot marché bi 11h lañ koy teg mu jëm nag ci xeex gi ñuy xeex dajaloo yi ci jamono ji nga xam ni dañ fi bëgg a jëlee jàngoroy coronavirus Demba Touré moom mooy préfet bu Fatick. comité yi nga ne ñoo nekk ci gox yi dañuy xool ku ci nekk sa gox li mu méngul nga jël fii nag ci Fatick am mooy marché bi daal Sénégal fa la nit ñi di dajaloo lu jéggi dayoo te ci biir marché bi sax dimanche la ñuy gën a constaté engouement boobu nit ñi di fa ñëw moo tax décidé ne dimanche bi daal nañ fexe di tëj marché bi à loolu dañuy permettre donc commune bi chaque dimanche buñ ko tëjee ñoom ñu dem nettoyer marché bi. bu weesoo tëj gi ñuy teel a tëj marché bi dimanche bu jot ñu ni li nga xam ni moom moo di fu waay jot lal fa toog di jaay dañ ko fi tere itam. lal yi ñuy lal ci yoon yi wala ñuy taxaw di jaay ci yoon bi parce daal dajaloo nit ñi encomprement encombrement yoon yi daal du comme ni mu waree. moo tax ñu jël décision bi. préfet bu Fatick nag di xam ne ne dogal yi laataa ñu koo jël waxtaan nañ ceeg askan wi ba gis yeneen pexe yoo xam ni du lor kenn. dañ ci waxtaane moo xam commerçant yi moo xam commune bi xool aussi yan lor-lor la war a mën a indeek yooyu donc li ci war a mën a metti mooy jigéen ñi dem marché te loolu gis nañ ne boo demee ci quartier yi am na ay marché yu ndaw yu fa population bi je pense que mun nañ gën orienté wu ci marché yooyu. préfet bu Fatick di xamle ne ci yeneen gox yi nga xam ni ay luuma dañ ko fay organiser foofu yëpp itam dañ ko faa tere gis ne dogal bi ñu bëri respecté nañ ko Aminata Goudia bi Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata Kaffrine askan wa dëkk ci Medinatu Salaam de ñoom ñu ne lii di dogal yi ngir fàggandi ci jàngoro ji ba ca jiitu raxasu ñeel loxo yi mënuñ ko def ndax ñàkkum ndox boo xamante ni ña ngi ko fay dund ca mu ngi bëgg a yàgg nag Oumar Ndiaye. ci pindub teen ba lañu dajaloo di jukki ay baag ngir ndox mu ñuy jëfandikoo mu nekk jafe-jafe ci ñoom na jamonoy jàngoro ji ñuy dégg ci gox bu ne seen Cissé di kenn ci bàjjenu gox yi nekk ci Médina Salaam 2 gis na seen liggéey yépp a tagga témbe jamono ci jëloon nañ matuwaay bu ma sëkk waaye léegi matuwaay bi yëpp ñu ne ana ndox mu ñuy raxasoo nit ñi mënuñu am ndox muy raxasoo amuñu ndox muy muy sangoo seen doom amuñu ndox muy toggee seen kini amuñu ndox muy naan léegi dëkk yi ñu ak sanjalaaji maay dëkk yooyu léegi dañu te teen bi rek moo fi sës te teen bi tey waroon nañu xam sax ku ñu ko mën a xoolal ndox mi ndax normal na wala normalut waaye ñun xamuñu dara dañoo war a jëmoo démb buñ ak taayal ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi doomu aadama ñooy jëfandikoo teen yooyu moo tax ñuy sàkku ñu jagal seen forage boobu ndax fi mu toll nii jëfandikoo ndoxum forage mooy li gën ci seen wàllu wér yaram Cheikh Soumboulou Cissé. état nañu wallu dimbale ñi li laay war a soli suñu forage pan na gën a gaawee jigéen ñaa ngi ci teen bi guddi ak bëccëg parce que munoo tëdd amoon ndox moo naan fas yi ci teen yi la naan tooli dër yi parce que bi ko askan bi di yore paan lu mu garaaw garaaw lu mu tar dans vingt quatre heures sur vingt quatre dinañu ko defar ñoom askanu Médinatoul Islam 2 nee nañu lépp lu ñu man ñu ngi koy def ngir sàmmoon sàmmonteeg ndigalay kër docteur waaye nag bu ci ndox mu sell bokkoon dana gën a ñoŋ ci seen wér yaram Midinatoul Islam 2 Omar Ndiaye rek jërëjëf Omar euh, lu jëm ci wàllu xeex beeg jàngoro coronavirus faw askan wi ñu boole ko ca mënut ñàkk foofee it faw ñu sukkandiku ci ñii di acteur yu école bi mooy gis-gisu Babacar Gaye bu PDS di njiital mouvement Corona 221 Ibrahima Diamé. ni feebar bi le bindoo jamono jile ak cas communautaire yi ñu gis jamono ji ci biir dëkk bi te ñu ne ñoom ñoo gën a naqare géré ki di Babacar Gaye taxawal benn mouvement de sensibilisation bu ñuy duppee Corona 221 di proposé kon nguur gi mu baral approche communautaire ci xeex Covid 19. comme léegi li ñu jaaxal mooy les cas communautaires il faut avoir une approche communautaire de la sensibilisation maanaam dem ci gox-goxaat yi wax ak ñi nga xam ne ñooy euh, ñooñu ñuy yaakaar wax ak étudiants yi nga xam ne dañu jógee vacances université ñëw seen wetu yaay ak seen wetu papa wax ak élèves yi nga xam ne dañu nekk vacances wax ak enseignants yi nga xam ne nag fi ñu toll nag ñoom tam par solidarité et par civisme et par loyauté vis-à-vis du pays ils en vacances war nañu mën a ñoom jàpp ci liggéey bi pour vulgarisation bi mën a gën a baax. donte nag moom responsable libéral bi lay dax ci li bokk ci ku kujjeek politique bi moo ngi rafetlu bu baax a baax xeex bi nga xamante ni gouvernement bi sumb ko rawatina waa ministère de la santé ak résultat yi ñu ciy jot a am. suñu soldats yi généraux yi. ministre bi jiitu leen. xeex bi ñuy xeex coronavirus. ndam la ci Sénégal parce que ñoo nekk le premier pays africain à avoir les meilleurs loolu mun bu ñu neexee ministre boo ko neexee mu bàkkoo ko même bu fekkee tombé moo indi ay gaaf ci moom ayam gi daal la ñu am coronavirus fii la ñu amee résultat yoo xam ne mooy nekk les premiers résultats au Sénégal euh, en Afrique nekk troisième résultat au monde. mu tàmbalee ko Kaffrine jaar Nioro jaar Kaolack Babacar gay doon installé ay cellules yu ñu duppee corona 221 mu doon kon taxawaay bi mu am ci xeex pandémie bi lee jaarale ko ci ay action de sensibilisation Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan bi bu njëkk ñuy àddu ci micro RFM njabootu ndem si yàlla Bara Samb di ndaw li nga xamante dana ko boom ca États-Unis ajuma ji nu génn njaboot gu am tiis ak naqar ci liberté 1 fii ci Ndakaaru rawatina yaay jëm moom Bara Samb la amulu sabax ba dajeel. li ma dégg rek mooy sa doom boom nañ loolu laa dégg amu ci leneen. le huit woon na ma. maa ngi koy woo sax jotuma. fajaxu samedi bi soxna Fatim Diaw dootu ko fàtte benn yoon. moom moomee nekk way juru baax a samb moom mi nga xam ne dañ koo boom ca Atlanta fële ci États-Unis ca guddig ajuma jàpp samedi. waaw meeg njaboot ñu nekk ci àll bi nekk Atlanta nga tëdd ba guddi ba fajar ñu woo la ne katal nañ ko kon loolu dinaa mettit noonu laa yëga mbir mi loolu rek ma xëy nag ànd ak samay mbokk ak samay kii ñu toog fii defale ma ko wante nag ñu sant jullit yëpp ak taalibe yëpp. gannaaw ba xabaar bi jibee këram gi nekk ci Liberté 1 jamono yoo xam ne na sax mbas mi wàcc fii ci Sénégal maanaam coronavirus muy wéy di nangu njaal yi ci téléphone bi lenn rek moo ko ci metti gisul benn autorité gouvernement bu Sénégal bu taxawu wala sax woo ko téléphone mu metti lu ko lool. ñu ngi woo damaa wuyu ba mënatumaa wuyu kon damay sant yàlla. dégguma dara man xamaguma dara. damaa jëlale gouvernement Sénégal mais association si nekk foofu te dégguma ci kenn ku ma ne nangam. Ah, xëy na nag boo investir fële di nga ci xam dara. waaye soxna Fatim Diaw mi ngi sant bu baax communauté murit bi nga xam ne ne moo nekk ca Atlanta ci seen taxawaay ba ñu mën a jébbal doomam bi ki nga xam ne ne mooy borom bi waa daayira ba Ibadu Rahman nga xam ne waa kër sëñ Tuubaa yi ñoo leen fasam ñu taxaw yu mel nii ñoom ñëpp ñu ànd ak fondation bi julli di taxaw sama doom bañ jël sama doom teg ko ci seen loxo ñu jullee ko defar ko yóbbu ko ci cimetière ñu ñaanal Bara Samb mi ngi amoon ci lu tolloog fanweeri at ak benn te doon dund fële ca Atlanta bi famille bi di xam la ne xamaguñ ci dara. Amadou Sabax jërëjëf ñuy mastaw bu baax njaboot gi mastaw it doomu Sénégal yi nga xamante ni ab diire ngi ñu daal di euh, ngiroo ca Rosso Mauritanie mënuñoo ñibbi si seen réew mi nu fekk baax euh, nekk coono bu mitti lool bu du sañoon nguur gi ba leen xel ci seen kàddu Oumar Mbaye nga bëccëg gi liñ doon def mooy dañ daan nekk bi affaire bi doo commencé nii ñuy cotiser par deux cent deux cent dem dajaloo fenn daal di togg añ bu guddigee ñu daal di def cent cent daal di dajaloo léegi gars yi nag dem nañ ba actuellement ni suñu yoroon ñun ñëpp dafa jeex am na gars xam ne dañoo loosé woon mujj nañ dem ba bi ñu loosé weer bi dee amut luñ fayee loosement dañ leen a génnee gars yi ñenn ñi si mbaar yi lay fanaan ñenn ñi si mbedd mi bi ñu demee suba gi buñ xëyee ñu dajaloo marché am te ñu fekk ñu foofu di ñu dàq xam nga am na gars yoo xam ne day daw ba di si gaañoo yooyu te fii ñun ay Sénégal lan si réewu jàmbur lan nekk ñu fi doole donc nekk na loo xam ne métti na trop gars yi ñu fi boo xam ne képp ku fi nekkul mënoo koo xam te buñ la métti na trop métti na trop te ku ñu si jàppale la ñu bëgg ba Sénégal yi dégg xam ne seen doom sonn na trop fii sonn noonu trop franchement parlé sonn noonu amuñu lenn loo xam ne lu nu lekk la wala lu nu naan. Oumar Mbaye ci turu doomu Sénégal yooyu tag ci Mauritanie transport routier bu Sénégal moom ñi di nattangoom dawalkat lay ñi ndax ñenn ci boromi camion yi nu dénk yi liggéey bi jëm ci yëpp dund gi euh, di dund ak ndimbal ngir askan wenn wi ci Sénégal euh, da caa am ni ci dugal yi tappale di sërëxalaale nit ak yeneen ci jamono yu nu teree tukki diwaan ak diwaan waral muy sàkku ci kilifa yi ñu baxel euh, loolee nga xam du ci mën a ñàkk ci ñoo xamante ni daal dañ ca dugali nit di fayoog yooyu leeral yi góor xuma ci micro Haj Ndete war ngay def bañ koy defee mama ci amee xam-xam dénoncé naa ko ba Sénégal gi xam ne góor ko ba dénoncé na liggéey war ngay war ngay def wuru remplacé cette phase que militaire yi def woon ci liggéey léegi camionneur ñoo koy def te groupe bi koy def man dama dul nungu ñu koy pratiqué di yàq deru ñi nga xam ne defuñu ko groupe bu ndaw di yàq dere gu nit ñi mel ni xaalis mën a gënal yaram virus bi lañ koy transporté pour quelle raison gouvernement yi ne région ak région bu mu dem nit ñi ne toog seen kër yow nga jëlab camionneur di ci yow ay nit di ci encaissé vingt cinq mille quinze mille francs trente pour yàq nit ñi bu loo def sa poche mais nit ñi dafa mel ni Sénégal dafa am ñoo xam ne ñi bëgguñu feeru jóge fi ku bëgg feer bu jóge fi di nga directive yi ministère de la santé santaane mais dafa am ñoo xam ne xaalis fu ñu fekk beneen leneen lu ëpp loolu nañ dal sa kaw ba nga xam ne dal nañ ko kaw puisque c'est pas normal ab camionneur di encaisser ab xaalis di transporter ñu doog de 6 heures à 20 heures ñu doo pour transporter ay passagers góor xuma en tant que secrétaire de l'union des routes nationales condamné na ko farouchement ñi koy def. ak RFM kumpa jeex na. ñu yegg seeg yéen ci euh, Coro News di leen xaymaal tolluwaayu jàngoro yi coronavirus ci àddina ak Fama Dione. lu ñu doon xaar la léegi lu leer la États-Unis mooy réew bi nga xamante ni fa la mbas mi gën a lëmbee diirub benn fan nag lu jege ñaari junni doomu aadama ñàkk nañ seenu bàkkan ndax coronavirus ci États-Unis googe communauté afro-américaine ya ñoom nag moom la jàngoro ji gën a laal seetlu nañ ko ci dëkk bu mel ni Nouvelle-Orléans nga xamante ni téeméeri nit yu faatu yoo jël juróom fukk ya ay yu ñuul lañu ca États-Unis lu jege juróom benn téeméeri junni doomu aadama am nañu jàngoroy coronavirus ca continent bu Europe réew mu mel nii France Italie ak Royaume-Uni daañu yokku tëju bi nga xamante ni moom la ñu nekkee ca France épidémie bi mi ngi gën di yokku am na lu jege fukk ak juróomi junni doomu aadama yi ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci ab xayma bu direction générale de la santé ci ab communiqué ci benn fan ñetti téeméer ak fukk ak juróomi doomi francais ñoo faatu lim bi bi nga wàññeeku ndànk-ndànk Italie moom xam xamle démb ci dimanche gii am nañu ñeenti téeméer ak fanweer ak benn doomu aadama yu faatu ndax jàngoroy coronavirus ci benn fan dongo nekk na bilan bu gën a néew fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ba léegi jéego yooyu italien ji def nag ña ngi kaa seetlu ca Lombardie nekk ca région de Milan foofee nga xamante ne fa la jàngoro ji gën di lëmbee ca Espagne ginnaaw bi ñu amee lëm bu néew fan yi ñu génn bilan ba yéegaat na démb ci dimanche gi ndaxte am nañu lépp juróom-benn téeméer doomaadama yoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci benn fan dongo ñu des ca Europe Royaume-Uni démb gouvernement ba xamal ni am nañu juróom-ñaari téeméer ak lu topp ci ay doomu yoo xamante ni faatu nañu ndax jàngoro coronavirus lim bi nag néew na bu ñu ko natable ak lim bi nga xamante ni moo génnoon ca samedi fi mu ne nii lu jege téeméeri junni doomu aadama ci Royaume-Uni ñu ngi am jàngoroy coronavirus waaye nag réew ma xibaar bu neex bi mu am démb moo di génn l'hôpital njiiti joriñ ga de Boris Johnson ñetti fan ginnaaw bi mu jógee service réanimation jamono ji ma nga ca këram di dallu gërëm na ñi nga xamante